bismillahi rahmaani rahiim subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim mbokk nii teewlu ci silatu rahim askanu njaxate noo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell ci nuyoo yi te mooy asalaamualeykum wa rahmatullah nuy dikkaate yéen ci seen jataay bi di kaay jàng nu ciy jàng téere bi di laxdar yu tey di sunu bind fanweer ak juróom mu tàmbalee ci waman naqasa faridatan falaa yujzihi sujudu anha wa man naqasa alfadaila fala sujuda alayhi kon mu wéy ci bunt bi mu nekkoon te mooy baabu sahwi muy bunt bi lay jàngal boo juumee ci julli naka nga koy defaree wa man naqasa ku wàññi faridatan ab farata fala yujisihi du ko doy as sujoodu sujood anha walif ko nee na képp koo xam ne dangay julli wàññi ab farata sujood mënu koo defar kon sujood moom wàññi ab sunna walla nga dolli ca julli ga rekk la mën a defar waaye bu dee dangaa wàññi lu mel ne ab farata nag moom kenn mu ne koo defaree ab sujjóot ab farata moom boo ko wàññee danga koy indiwaat maanaam danga koy wóotale ab ràkka bu ma sëkk lu ko moy rekk julli ga day yàqu kon boo doon julli fàtte ab rukon walla nga fàtte ab sujjóot ni nga koy defaree mooy bala nga sëlmal dangay indi beneen ràkka boo xam ne danga koy wuutal ca rakka boobee nga xam ne yàqu na kon boo fàttee ab sujjóot wala ab rukkoo ci rakka rek jàppal ne rakka boobu moom baaxatul jàppal ne bokkatul ci julli ga bu ko defee rek nga indiwaat beneen ràkka wóotal ko ca dana gën a leer ci bind yi ci bind yi ci kanam waaye takk-takk bi rek mooy farata moom saa yoo ko bàyyee rek mënoo koo defare ci sujjóot waman naqasa ku wàññi la ngëneel fala sujjóote dee sujjóot alayhi di ko war nee képp koo xam ne danga wàññi ab ngëneel ci julli gi xamal ne sujjóot waru ca dara waru ca kon ab ngëneel moom soo ko wàññee doo ko sujjóotal te it julli ga yàquwul wala yakunu sujuudu alqabliyu illa li tarki sunnatayni fa akthar wa ama sunnatu alwaxidatu fala sujuuda laha illa sirra wal jahr wala yakunu déet muy nekk as sujuudu sujuud alqabliyu bay ko jóg qabla illa li tarki sunnatay ni ndere ñeel bàyyi ñaari sunna fa kasara topp lu ko ëpp wa amma sunnatu ndaal sunna alwaxidatu ba di benn fala sujooda déet sujood la di ko ñeel ila sirra ndere yàllu wal jëhër ak biral neena na sujoodu xabla nag muy sujood bi ngay def njëkk ngay sëlmal nee li koy waral mooy nga bàyyi ñaari sunna wala lu ko ëpp wala nga bàyyi sunnatul mu ak akkada lu mel ne yàllu ak biral waaye boo bàyyi woon benn sunna su du ca war te it julli ga yàquwul baax na kon sunna yi nga xam ne moom lañuy su jootal xab la dañ koy tënk ci juróom-ñetti sunna muy yàllu ak ñaari taaya ak bërël ak jotaayu taaya ak kàbbar ya ak wax sami allahu liman xamida kon juróom-ñetti sunna yi mooy sunna yi nga xam ne des leen di sujjootal xab la bu dee dañ cee bàyyi kon bu dee dangaa bàyyi euh, lu mel ne yàllu nga xam ne sunna sunu feddali la bu boobaa danga koy sujjootal xab la bu dee danga bàyyi béral moom it maanaam bu doon dangaa war a béral nga yellu ko bu boobaa yi dañ koy sujjóotal sujjóotu la ndax béral it sunnatu mu akkada la naka noonu it bu dee dangaa bàyyi saar wa saar wa ngay jàng ci ginnaaw faatixa walla laaya ba ngay jàng ci ginnaaw faatixa moom it sunnatu mu akkada la boo ko bàyyee danga koy sujjóotal sujjóotu xabla naka noonu it bu dee dangaa bàyyi lu mat ñaari kàbbar wala lu ko ëpp wala lu mat ñaari sami allahu liman xamida wala lu ëpp danga koy sujjóotal sujjóotu xabla naka noonu it bu fekkee dangaa bàyyi taaya ak jataay ba nga xam ne daal yow bi ngay julli taayawoo naka noonu it jataayu taaya bi it toogoo ko naka nga julli ñaar rakka war a toog faf nga daal di jug bu boobaa danga koy sujjootal xab la loolu la woykat ba di tënk naan siinaani shiinaani kada jiimaani taani addu sunani samaani eh, mu ne siinaani muy ku bàyyi assirru wa suura maanaam ku bàyyi yàllu ak saarwa naka noonu it shiinaani ku bàyyi ñaari taaya muy attashahudayni naka noonu it ku bàyyi jiimaani muy aljahru wal julus mooy beral ak jataayu taaya naka noonu yi ku bàyyi taani muy takbiir ak tasmiya muy kàbbar ya ak sami allahu liman hamida ya nee na yooyu mooy juróom-ñetti sunna yi nga xam ne ku leen bàyyi danga leen di sujjóotal sujjóotu xabla faman asarra fil jahri sajada qabla salaam wa man jahra fi sirri sajada ba'da salaam man asara ku yàllu fil jahri ci bérébu béral sajada sujjóot na xabla salaami njëkk sëlmal ba man jahara ku béral fi sirri ci bu yàllu sajada sujjóot na ba'da salaami ci ginnaaw sëlmal ba ne képp koo xam ne danga waroon a béral nga yàllu xabla salaam ngay sujjóot muy njëkk sëlmal ngay sujjóot ñaari sujjóot daal di taayawaat daal sëlmal niki koo xam ne day julli julli suba wala muy julli timis ak gée nga xam ne bu ci nekk ñaar rakkaay yu njëkk yi dañ koo war a biral maam lañ nga cee jàng da ko war a jàng ca kaw waaye yow nga ñëw jàng ko ndànk kon boobaa xabla salaam ngay sujjóot naka noonu it koo xam ne dafa waroon a jàng ndànk niki tisbaar ak tàkkusaan ak benn rakkaay mujj ci julli timis ak ñaar rakkaay yu mujj julli gée mu béral leen wax ko ca kaw lam cee jàng xam ne ndànk la ko waroon a jàng waaye mu jàng ko ca kaw kon boobaa dafa dolli ba'da salaam lay sujjóot muy day sujjóot ñaari sujjóot ginnaaw ba mu sëlmalee daal di taayawaat door a sëlmalaat wa man takallama saahiyan sajada ba'da salaam wa man takallama ko wax saahiyan mbir mu muy aji jamuj sajada sujjóot na ba'da salaami ca ginnaaw sëlmal ba nee na képp koo xam ne dangay julli wax ca biir julli ga ci njuumte bu boobaa baada salaam ngay sujjoot ndax dangaa dolli muy ginnaaw ba nga sëlmalee ngay sujjoot ñaari sujjoot taayawaat door a sëlmalaat kon saa yoo julli rek boo dolli ab baat ca julli ga wala nga wax ab baat ca julli ga goo xam ne bokku ci rek danga dolli wa man sallama min ni saahiyan sajada baada salaam wa man sallama ku sëlmal min rakaatayni ci ñaar raka saahiyan mbir mu aji juum sajada sujjóot na baada salaami ca ginnaaw sëlmal ba nee képp koo xam ne dangay julli jullik ñeenti rakka walla julli ñetti rakka nga julli ñaari rakka rek daal di juum sëlmal kon bu boobaa ni ngay def mooy dangay ngay jug àggale julli ga boo noppee nga sujjóot ba'da salaam ndax danga dolli wa man zaada fi salaati rakaatan aw rakaatayni sajada ba'da salaam wa man zaada ku dolli fi salaati ci julli rakaatan ab rakka aw rakaatayni walla ñaari rakka sajada sujjóot na ba'da salaami ca ginnaaw sëlmal ba nee képp koo xam ne danga dolli ca julli ga ab rakka ni ki ngay julli suba dolli ca benn rakka wala nga dolli ca ñaari rakka ni ki ngay julli tisbaar wala takkusaan wala timis wala gee dolli ca ñaari rakka nee na kon bu boobaa ba'da salaam ngay sujjóot kon saa yoo xamee ne yaa ngi dolli rek da ngay toog taaya sëlmal daal di sujjóot ba'da salaam waman zaada fi salaati mislaha batalat waman zaada ku dolli fi salaati ca julli ga mislaha ab kemam batalat yàqu na ne na képp koo xam ne nag danga dolli ci julli lu toll ne kem julli ga ngay julli kon boobaa xamal ne su sujjóot du ko defar waaye julli ga day yàqu da ngay julliwaat ni ki julli suba nga xam ne ñaar rakka la boo juumoon dolli ca ñaari rakka julli ga day yàqu naka noonu julli tisbaar wala tàkkusaan boo ci doolee ñeenti rakka julli ga day yàqu naka noonu julli timis boo ci doolee ñetti rakka julli ga day yàqu naka noonu julli gee boo ci doolee ñeenti rakka julli ga day yàqu kon daal saa yoo xamee ne julli ga dolli nga ci lu toll ne kem limub ay rakkaam rek julli googu moom mayee su koo defar day yàqu faaw rek da ngay julliwaat ok kon mën nañoo yamadi foofu ba beneen yoon dem soob na yàlla yoon dem soob na yàlla